de viol c'est c'est c'est c'est infamante c'est c'est c'est c'est c'est dafay dafay toucher sa sa sa dignité c'est-à-dire nga nekk un homme politique tu as ton cheminement tu es un homme comme tout le monde ah comme tous les hommes ah tu fais ce que tout le monde fait nga xëy non c'est pas évident ma ne non c'est non c'est pas une accusation non ngay ngay dund sa dund mu am ñu dem mu nga xëy ñu lumbaj sa vie privée génne tegal la accusation de viol et yéen yow mii ci nga bokk ñaari at ñaari at plateau boo leen dem. nga ni ci laa bokk par boo leen dem. ngeen chargé waa ji chargé ngeen di chargé waa ji ngeen di chargé waa ji ngeen di chargé waa mais xalaatoo nit ñëpp du ñu benn mu ex ci niveau de révolte boo xam ne et il le dit Macky Sall day jël sama bakkan baa ma jël bakkan a Seck nen loolu waxu dof la un président de la ko jàkkaarloo moom di ko wax loolu. mais xamuloo ci niveau de frustration ak ci niveau de révolte bu mu toll. non waaw parce que waaw dama lay expliquer. may mun a premier jour bi ministre de l'intérieur ñëwee en conseil du du secret ah dama koy wax parce que du loo xam ni secret d'état la rendre compte conseil bi ci dossier parce que presse bee ko bindoon. ba ma ko njëkkee lire man presque. avant ñu def conseil les échos. waaw ko njëkkee lire j'ai rigolé j'ai dit non waaye vraiment. lii mënul yi mënut a nekk quoi. j'ai dit j'ai rigolé daal lire dem sama yoon. conseil bi ci toog ñëw ministre de l'intérieur rendre compte au conseil rendre compte président rendre compte le conseil le président la a dit du secret hein ndax wax nañ ko ñëpp xam nañ ko il a demandé les avis tous les ministres ont dit Monsieur le Président ça c'est une affaire privée laissons la justice régler ça entre Adji Sarr et Ousmane Sonko aucun ministre yëkkatiwu ci kaddu commenté ci sur le plan politique wala wax ci lenn lu jëm ci ñu tiir ci un gain politique. mais ça c'est le début. dafa dàgg oui mais début ak fin c'est Ousmane Sonko qui est à l'origine mook Adji Sarr de leur affaire privée nañ ko régler sur le plan privé. comme ne dafa nànk rek nee nga affaire góor la d'accord affaire góor la sa jigéen am na lu mu ko waxal wax na dem wax ni maa moom la woon lii lañ seqoon fii lañ ci yem peut-être wax xalaat na ci nii demul noonu. mais mais vous êtes sûr que c'est aussi privé que ça. te mais nu mu mënti demee affaire privée la privé mooy. waaw seq ñaari kii. xam nga affaire privée la. non non affaire privée xam nga mooy la. non xam naa ma ne. mooy entre deux privés. est-ce que est-ce que incident la entre góor. ak jigéen kese est-ce que amul ñoo xam ne monté nañu ko est que amul ñoo xam ne alimenté nañu ko est-ce que amul ñoo xam ne instrumentalisé nañu écoute mais mun a li am solo mooy fan la affaire bi jógee ak fu munta jógee mais dafa ndànk xam man fekkente ni vraiment wax dëgg yàlla côté boobu nag damay je dois mere naa ci Sonko j'ai dit Sonko devait dëgg yàlla su fekkente ni ak ambition yu mu am pour sa pays vraiment li muy wax waru woon egg foofu amoon mon avis comme ni nga wax na affaire góor la peut-être ak na ay góor peut-être ko xam ne peut-être mën nañ ko nangu mais j'estime que soo nekkee un leader am ay ambition pour ton pays donc ak situation réew mi fu mu toll am na noo xam ne war nga ko comporter donc du ma dugg ci détails yi mais jàpp naa ni jàpp naa ni warul woon egg si niveau boobu bañ koy yóbbu peut-être est-ce que dañ ko yëg taxal jox di tool wax dëgg mënuma ci dugg ndax awma ci benn preuve mais jàpp naa ni waroon na mun a ñag boppam euh, suturaal boppam ba am na loo xam ne kenn du ko ci tudd ba ko ciy taxal. mais maandu bii nga ciy waxee daana ko ci daan waxee. pardon yéen da ngeen vous avez passé votre temps à charger. non de non déggul la dama ni par ma ni par rapport au fait xam nga comme jugé nañ koo pare du ma ci duggati mais dama ni par rapport à la position rek en tant que leader politique. jàpp naa ne am na loo xam ne jàpp naa ne waru foon egg bay egg si lii jàpp naa man waru foon egg ndax su fekkente ni nee na am na ambition pour diriger le Sénégal c'est un grand leader il a deux femmes il a ceci ak sa li mu doon je veux dire woote lépp comme valeur jàpp naa ne am na loo xam ne waru foon egg man de c'est ma position peut nag mën nañ ne ma woy affaire góor la góor loolu damay